wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu ginnaaw bañ sante borom subhanahu di jul ci sang-sang mu seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam saa su ne ñu ngi defee ñun waa El Vision Médias nee leen programme diine yi duñ ci bàyyi deen deen tey ñu ngi Touba ci dëkk suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul depuis mercredi ba léegi ñu leen won la moo xew ci Touba waaye tamit ñu jógee ba euh, jumaa ja ñëw fii ci kër euh, soxna mbay mba soxna asu mbàkke doom ci sëriñ mutala mbàkke ibnu xaadim rasul radiallahu taala anhu fii lañ ñëw fas yéene waxtaan ak moom ñu wax mu wax ñu tuuti ci maamam wax ñu tuuti tamit ci papaam sëñ mutala mbàkke wax ñu tamit comportement jigéen nan la war a mel euh, ginnaaw ba mu nekkee jullit waaye tam ginnaaw mu nekkee taalibe suñu maam Ahmadou Bamba xaadim rasul mais ginnaaw boobu daam ko koy ubbi ba pare ñu moom salaamaaleykum sëñ nee na ñu ngi nuyu ñëpp nee na di sant ñëpp nee na di sargal ñëpp nee na di leen wax ni fii nu daje nee na ci atub góor yàlla Seex Murtala nee na dañ fiy sant yàlla de nee di sant Serigne Touba ndax daje ngeen fi daje tey nee na daje nañ fi dajewaat fi waaye ku fi jóge boo delsee xam ni yokku nga nee na yokkeel gi nag nee na nan ko sante sunu jigéen sunu sëriñ nee na muy soxna Astu Mbàkke mii di su doomi Seex Murtala nee na ndax moom kat nee na ba mu tàmbalee laxasaayam gii nee na yàgg na lool de nee na alaaji Seex nee na mën nañ koo seede ndax nee na ki nga xam ni mooy seen waajur di sunu sëriñ di sunu wasila di seex murtala ah, nee na seex murtala ah bàyyi woon na doom ji xel ndax moo tax de mu laxasaayu nee na di laxasaayu ba romb li góor waroon di def nee na soxna Asu Mbàkke mi di ko def nee na ñi ngi lay sant nee na di la ñaanal yàlla nee na yàlla na yàlla def nga gën a gudd fan te lii ngay def at mu ne nee na tànk kanam rek nee na ñu ngi lay ñaanal nee na di la sant nee na di fi wax ñi fi toog ñëpp ah nee na soxna Asu Mbàkke daal nee na mi ngi leen di ñaanal nee na mi ngi leen di ñaanal ci barke góor yàlla. waa gis nga euh, nga xamante ni sunu mbokk moom mobile sunu yaay ji di soxna Asu Mbacke ibnu Serigne Moutala Mbacke ibnu Xaadim Rasul radiyallahu taala anhu dañoo fas yéene waxtaan ak moom rek. Euh, tuuti ci nga xamante ne lu waral màggal gi ak sunu maam Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul ak papaam Serigne Moutala Mbacke salaamaaleykum yaay bi yàlla yàlla na mu siyaar. ñëw fii ci màggal Touba di euh, dëkk bi nga xamante ne mooy dëkk sunu maam Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul mu woote màggal mu ne nañ ko santale borom subhaanahu wa taala santale ko euh, yonent bi alayhi salaatu wa jàng alxuraan ak ay xasaayit ak ay bernde mu mel ni ba ñëwee Touba ba léegi yooyu yëpp ñu ngi ko cee gis nan nga gisee màggal gi. Mm-hmm. waaw jërëjëf waay soxna si euh, waaye dañuy sant yàlla euh, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba Touba Xaadimu Rasuul mi war a dem ci géej gi. la wax ne bi nañ ko santale suñu borom ci dem gi muy dem mais bis bu rëy nag ci ñun bis bu rëy nag ci jullit yëpp ndax ñun ñëpp ko bokk bisu lislaam la bisu jullit yëpp ko bokk ñuy nekk nag ci bisu mbégte ci ñun bisu bànneex ci ñun bis boo xam ne dañuy jàng alxuraan gis nga ko fii tey liñ fi wàcce ci alxuraan ëpp na vingt kaamil fii gis nga leen ñu ngi kuréel jàng xasaay bi ci biir kër sëriñ Mourtada di ñaanal sëriñ Mourtada yàlla yàlla yokk leeram ndax ki la boole ci sëriñ Touba mënoo ko fay te ñun am ñu lu Cheikh Mourtada kon yàlla yàlla yokk leeram tey daal bisu mbégte la ci ñun ñun ñëpp daal ñu ngi nii di sant yàlla bu baax a baax comme niñ ko sëñ bu diggalee rek waaw dañoo bëgg nga wax ñu tuuti sa maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul lan nga ñu mën a wax ci moom loo xamante ñun xale yi nga xam fekkee wuñ fekkee wuñ jamonoom dinañ mën a am jàpp ci dinañ a jàpp ci moom. waaw Xaadim euh, Rasul moom lu ma ci mën a wax lépp sax dafa bari ndax yàlla dafa dogal euh, ñun subhaanahu wa taala euh, Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké am na liggéey yu bari yoo xam ne. sëñ bi amoon na yéene pour eggale ko waaye def wax na ko na doomam Cheikh Moutada moo ko eggale ci extérieur kon ku ne xam ne ne euh, mébét bi sëriñ tubaa bëggoon sëriñ Serigne Moutada eggale na ko ci ci extérieur ndax ñi xam ne nekkuñu woon jullit mu leen di tuubal di nekk ay ñu nekk jullit ñu di ber ay kër Serigne Touba di fa def daara dafa jàngale alxuraan di fa xamal seen diine. waaw loolu ñu ngi koy sante Cheikh Modou Mourtada Mbacké ndax man yàlla dafa dogal dama ñoo bari yoon yu ñu ànd ma nekk tout tànk euh, ànd ak moom fu baree baree bare daal am na yu bari daal lu ma ci xam. <laughs> ginnaaw ba sunu maam sunu maam Cheikh Mourtada Mbacké nelawee nga xamante ni moo yoroon lépp loo xam te jëm na ci wàllu bitim réew pour tuubal nit ñi jàngale alxuraan est-ce que kenn ci doom yi am na lu mu ngi koy def ci bitim réew ba léegi. waaw waaw waaw euh, ndax bi Cheikh mu Mourtada Mbacké wàcc liggéey ak Serigne Saliou nga xam ne moo fi nekkoon di xalifa Serigne Touba yàlla yàlla yokk laayam dafa daal di woo sëñ Maam Moor mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ di jëwriñu kër gi Cheikh Mouhamadou Mourtada ne ko dañoo bëgg ni sa baay doon defe liggéey bi nga wéyale ko noonu ni ko sa baay daan defee nga defe ko noonu tubaarkàlla macha allah nag booba léegi sëriñ Maam Moor ku ne xam ne ne ku yokk dangay wàññi te moom tubaar tubaarkàlla dafa yokk ndax amul ci benn yoon boo xam ne ànduma ci ak moom depuis 2004 ba léegi bi sëñ bi làqoo man lu ko jiitu daanaa dem waaye bu làqoo na dama ànd ak moom ci liggéey bi waaye gis naa ne daal ni nit ñi doon bi ñu ngi koy tuubee que sëriñ Tuubaa yi ñu ngi gën a yokk école yi sëriñ Murtalaa yi nga xam ne sëñ bi da ko def ci région yëpp tubaarkàlla macha allah daf koo gën a yokk ci bolé sax ay université di ci bolé ay excellence yo xamné vraiment pour nit ñi di gëna xam dal xam-xam pour doli xam-xam ndax euh dafa amane benen ñang mo xamné sax sëñ baa ngi leen koy ci formé euh ay euh, ki yu bari yo xam dal ñu koy def ci ay excellence yo xamné dal ñu koy def waaw dina bañ leen laajee sunu mam chamadou Bamba hadim rasoul ak sunu mam Serigne Moutala mbake dañu bëgg wax ñu comportement jigéen ginnaaw ba mu nekkee jullit waaye nekk taalibe suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ban comportement la jigéen war a yor en tant que jullit. waa ñun euh, en tant que jullit euh, comportement bi ñu war a comporté ñun soxna yi ñun ñu am suñu royukaay duñu am koo xam ne ñun moom la ñuy xool muy soxna jaara te ku ne xam ne ne soxna jaara royukaay la te ñun soxna yi suñu lépp ci soxna jaar rek lañ ko teg man yàlla dogal na ci daayira soxna jaara yi rek laay yëngatu ci extérieur ci àdduna bi. waaye ñun soxna yi ñun soxna jaar daal mooy suñu royukaay ñu ngi ci daal di fas yéene xam suñu diine di jàng lislaam di fas yéene nekk ci li yàlla santaane subhaanahu wa taala euh, fas yéene bañ manqué juróomi waxtu yi ñu ko Serigne Touba Cheikh Amadou ma waxe di liggéey ak di jaamu yàlla ñun daal ñu ngi ciy liggéey di jaamu yàlla suñu borom kër yi xam ne moom lañu yàlla jox tam ñu nekk ak ñoom nekk bu rafet di yar xale yi di leen éduquer parce que xale yi ñooy màgg ëllëg tey ci ñu laa ñu ci loolu rek waaw. ñu ngi lay sant di gërëm. waaw xam naa yow tam ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye maa ngi sant nag sama mbokk soxna yi fi ñëw ñi fi nekk ñëpp sama ay doomi ndey lañ ñi fi kii daaneel léegi sama mag la seen Cheikh moo fi moo fi wax waxaale góor ñi fi nekk ñëpp ñoom ñëpp samay samay nit lañ samay xarit lañ di sant sama yaay sama yaay mu ngi ci biir. maa koy sant di sama frère yi di sant ñëpp ak sama sœur yi vraiment waaw kontaan ci yéen nag ñu kontaan nañ ci yéen lool nag dégg nga waaw kay Aïcha ba tey ñu ngi woon fii ci kër sunu euh, yaay ji soxna asu soxna asu Mbacke ibnu Sëriñ Moutala Mbacke waaye te ibnu sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñu waxtaan moom ay kàddu yu am solo kàddu yu rafet macha allah ñuy bu baax baax Xaadim Sam mi nga xamante ni moo tax ñu gis soxna si ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ba léegi bàyyeeguñu day ñëwaat demaat ci beneen bërëb wanaan leen leneen ci màggal gi ndax sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul dafa ni nañ ko sant la yàlla bu baax a baax kon tey duñu bàyyi dara lépp lañ leen di wan yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ci yeneen bërëb yi te waaxiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf ah waaw fii nag moom wax waxewuñu waxu fans waxul taalibe waaw waaw ñun ñi nga xamante ni sëñ Bamba lañ bëgg nañ dem abonné ak ñi nga xamante ni sëñ Bamba rek la ñuy nooyee nañ dem abonné média